asalaamaaleykum wa rahmatulah. bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatulah. sëriñ bi noonu lay nuyu. sëriñ bi ñëw ngi lay nuyu. ñu jottali nuyoo murid yëpp. di la jottali nuyoo murid yëpp. di ak sunu siyaare. di la jox sunu siyaare. ak sunu cant. ak sunuy cant. di sàkk nga jottali ñu ko ci sëriñ ba nga jógee. di sàkk nga jottali ñu ko ci sëriñ ba nga jóge muy sëriñ Mouhamadul Mountakha. kàddu yi de moom. kàddu yi de moom. da ngeen noo yónni woon. da ngeen ñoo yónni woon. ñu waroon a seere. ñu waroon a seere. waaye bu dul woon loolu. waaye bu dul woon loolu. kon du jar dolli dara. kon du jar ñu ci dolli dara. ndax li Serigne Fallou wax matal na lépp. ndax li yi Fallou wax matal na lépp. ëmb na lépp. ëmb na lépp. ci ak taalibe. ci ak ci ak cant. ci ak cant. ak ci ak jotal. ak ci gën a rafete. nam gën a rafete. gën a sant kon nag ñu ngi sant rek. waaye ñu la xamal ne. waaye Mbàkke ñu lay xamal ni. nga ñoo yónni woon. da nga ñoo yónni woon. te daanu ko yónni. te daanu ko yónni. bañ tàmbalee liggéey bii. bañ tàmbalee liggéey bii. da nga waxante woon ak Serigne Mountakha da ngeen waxante woon. da ngaa waxante woon ak Serigne Mountakha la ngeen waxante woon. te nga wax nu ko fi ay yoon. nga wax ñu ko ay yoon. Serigne Mountakha. yabal ma fi yow. Serigne Mountakha yabal ñu fi yow. ngir ñu bokk ci say ndaw yi lay jàppale ci liggéey bi. ngir ñu bokk ci say yi ñuy jàppale ci liggéey bi. yi lay jàppale ci liggéey bi. yi lay jàppale ci liggéey bi. nga séddale woon ñu sas wii. nga séddale woon ñu sas wii. nee na ñuy jottali bokki taalibe yi Serigne Touba yi. mu ne mu ñuy jottali bokki taalibe yi Serigne yi. ngir ñu setal dëkkub Serigne Touba bi balaa bisub Serigne Touba bi ñëw. ngir ñu setal dëkkub mu mel ni noonu la ko sëñ Mouhamadou Lamine waxe woon. mu mel ni noonu la ko sëriñ Mouhamadou Lamine waxe te loolu itam. nee te loolu itam. ba nga ma joxee ndigal li. nee ba nga ko joxee ndigal li. da nga digalaale woon. da koo digalaale woon. bala maa dem fenn bala ngaa dem fenn wala may wax dara bala ngaa wax dara wala bala maa wax dara wala bala maa wax dara naa dem ba ki fi nekkal Cheikh naa dem ba ki fa nekkal Cheikh Ibra njëkk koo jottali ndigal li njëkk koo jottali ndigal li ndax fu ñuy liggéeyale Serigne ndax fu ñuy liggéeyale Serigne Touba Cheikh Ibra moo war a jiitu ca kanam Cheikh Ibra la war a jiitu ca kanam loolu moo waral noonu rek lañ koy defee at mu nekk loolu moo waral noonu rek lañ koy defee at mu ne ban ko tàmbalee ba léegi. nan ko daan defee ci sëriñ Cheikh Jëmb. nan ko daan defee ci Serigne seex Jëmb. ba mu wàcc. ba mu wàcc. Serigne Amdi mii nekk fii. Serigne Amdi mii nekk fii. noonu rek lan koy defee. noonu rek lan koy defee. jotee ndigal li. bu ñu jotee ndigal li. dañuy ñëw ba ci kër Cheikh Ibra. dañuy ñëw ba ci kër Cheikh Ibra. ñu jottali ko. ñu jottali ko. door koo jottali fenn. door koo jottali feneen. waaye bu nu ci jógee itam. waaye bu nu ci jógee itam. daanu ko jottali murit yëpp daanu ko jottali murit yëpp seexi sëriñ tubaa yëpp seexi sëriñ tubaa yëpp bokki taalibe yëpp ak bokki taalibe yëpp ñëpp la ñuy woo ñëpp la ñuy woo dañuy woote ay daje dañuy woote ay daje di jottali ay kàddu di jottali ay kaddu tàllal ñëpp loxo tàllal ñëpp loxo yooyu nag mbàkke mat la xamal ni yooyu nag mbàkke ñu lay xamal ni na ngeen ko bëggee woon na nga ko bëggee woon de defe nañ ko ni defe nañ ko noonu <coughs> woowoon na ñëpp. nee na woowoon na ñëpp. waaye ñëpp wuy si nañ. waaye de ñëpp wuy si nañ. wuy si winu rafet. wuy si winu rafet. ndax liggéey bi moom. ndax liggéey bi moom. waxtu wu nekk kiimaan da ciy feeñ. waxtu wu nekk kiimaan da ciy feeñ. ndax day mel ne at mu ñëw. ndax day mel ne at mu ñëw. mel ni daa naroon a gën a jafe. mel ni daa naroon a gën a jafe. waaye day far gën a yomb. waaye day far gën a yomb. loolu nag lan ciy gise mooy. loolu nag lan ciy gise mooy. liggéey bi moo ñor sëriñ bi. liggéey bi moo moo ñor sëriñ bi. sëriñ bi dina ci gàttandu ak taw fee xam. sëriñ bi dina ci gàttandu ak taw fee xam. waaye murid yëpp day. waaye murid yëpp day. liggéey bi ñor na leen lool. liggéey bi ñor na leen lool. nga xam ne ren jii day. nii mu doxe nii mu doxe ñëpp génn. ñëpp génn. kenn desul. kenn desul. kër yi kër yi seex yëpp. kër seex yëpp. génn seen mbooloo yëpp. génn seen mbooloo yi. ba liggéey bi gaawee nii mu gaawee. ba liggéey bi gaawee nii mu gaawee. ak nii mu sete. ak nii mu sete. taw la taw feex la. waaye jataay bii ñu toog fii nag. te yàgg koo toog. te yàgg koo toog. nga xam ne boo nuy ñaanal. nga xam ne boo nuy ñaanal. ci njabootu Seex gi lañ ñëw. ci njabootu Seex Ibra Faal gii ngay ñëw. te loolu daa fekk mooy baat ba njëkkoon a wax. te lool daa fekk mooy baat ba njëkkoon a wax. ne bala maa dem dem kër Cheikh Ibra ni ko bala ngaa gis naa ne bu nu ñëwee itam te gis naa ne bu ñëwee itam ki fi nekkal Cheikh Ibra ki fi buntu këri Cheikh yëpp dana woo buntu këri Cheikh Ibra yëpp ni ko sëñ Fall doon lime léegi ni ko sëñ Fallilu doon lime léegi rek di woo Cheikh Cheikh Ibra yëpp di woo Cheikh Cheikh Ibra Fall yëpp te ñëppay ñëw te ñëppay ñëw liggéey bi rëy na lool liggéey bi rëy na lool loolu nag nee loolu nag Pastef bi Pastef bi ak yéene ji ak yéene ji. ak yitte ji. ak yitte ji. ten di ko taatane ci Cheikh Ibra. nee di ñëw. ten di ko taatane ci Cheikh Ibra. ten ko taatane ci Cheikh Ibra. di ko fa jàngee. di ko fa ci njabootam gi. moo moo lépp. loolu mooy yombal lépp. ndax seexi kër seexi kër sëñ yëpp de. ndax ñëw nañ. ñëw nañu. dëkk bi itam. dëkk bi itam. daayir yi fi nekk. daayir yi fi nekk. ak mbooloo yi fi nekk. ak mbooloo nañ fi jóg jóg nañu. ñi daan jàpp ci liggéey bi itam. ñi daan jàpp ci liggéey bi itam. muy borom oto yi. muy borom oto yi. ak borom sareet yi. ak borom sareet yi. ak ñi fi mën a doon. ak ñi fi mën a doon. ñëpp jàpp ci liggéey bi ñëpp jàpp ci mën na ci jottiwaa jottaliwaale tuuti. loolu it mu ci jottaliwaale tuuti. da bari ay mbooloo yoo xam ne. da cee bari ay mbooloo yoo xam ne. liggéey bi ni ñu ko mu yaatoo. liggéey bi ni mu yaatoo. ak ni ñu bëggee mu sell ni. ak ni ñu bëggee mu sell ni. cee am ñoo xam ne jotuñu egsi fii ñuy tàggutoo da cee am ñoo nekk rek na ci njabootu sëñ Cheikh Fall sëriñ Cheikh Fall Baye góor ña ci biir ma biir jànnatul mahwa ña ci biir jànnatul mahwa dese woon fa ay liggéey jëm saam dese war a dugg ci biir police ba war a dugg ci biir police ba ak la ko wër lépp ak la ko wër lépp bi may wax sëriñ Mbacke Ngunda. bi muy wax sëriñ Mbacke Ngunda. ma leen jiite. ma leen jiite. ngir ñu ñëw ñu ñaanal ñu. ngir ñu ñëw ñu ñaanal ñu. daf maa waxoon ne ma. daf ko waxoon ni ko. damaa bëggoon nga may ma. damaa bëggoon nga may ma. feeg may gis dara ci sama kanam. feeg may gis dara ci sama kanam. ma bañ ko fee bàyyi. ma bañ ko fee bàyyi. jàpp naa ne feeg timis. jàpp naa ne feeg timis. dootuma fi gis dara. dootuma du ma fi gisante dara. ma bëggoon nga may ma ma àggale ko. ma bëggoon nga may ma ma yeggale ko. ñaan gi fekk dab si ma. ñaan gi dab si ma. mu xam ne loolu mu wax Pastef la. mu xam ne loolu mu wax Pastef la. dëgg la itam. dëgg la itam Serigne Mbacke naa Serigne Touba fu ñu ko liggéeyale. Serigne Touba fu ñu koy liggéeyale. man mu mën naa faye foofa. mën naa faye foofa. àgg na fépp. kon àgg na fépp. waa kër bokk na ci seere yooyu. bokk na ci seere yooyu. waa kër Serigne Madiba Sylla. waa kër Serigne Madiba Sylla. jamono yii. jamono yii. ña nga ci sa kër ga ci yoonu Daaru Muxti ña ci sa kër ga ci yoonu Daaru Muxti fa la ñuy àggale seenub liggéey tey fa la ñuy seenub liggéey tey fa la ñuy waa kër sëriñ Rijaal Seck waa kër sëriñ Rijaal Seck ñu ngi ci biir armeel yu njëkk yii ñu ngi ci biir armeel njëkk yii ñëpp it noonu la demee ñëpp it noonu la demee koo fi gisul itam koo fi gisul day mbàkke xamal ne mi ngi ca liggéey ba xamal ne ma ngi ca liggéey ba ma ngay àggale fi barab ma ngay àggale fi barab wala fa mu nekk ruqe wala fa mu nekk ruqe waaye ñëpp liggéey waaye ñëpp liggéey ñëpp a sellal ñëpp a sellal kon ñu fay ñëpp kon ñi nga fay ñëpp nañu fay ñëpp kon mbàkke nañ fay ñëpp ñaanal ñëpp ñaanal ñëpp sëñ Fallu na ko léegi sëñ wax na ko sëriñ bi bu wootee ngir santaane. sëriñ bi bu wootee ngir santaane. daa am ndimbal lum nu dencal. dafa am ndimbal lum ñu dencal. ku wuy si. ku wuy jot ca ndimbal la. jot ca ndimbal la. waaye jàpp naa ne ren jii. waaye jàpp naa ne ren jii. mboolem ku fi jege. mboolem ku fi jege. te man. te man wuy si nga wuy si nga ci woote bi ndax dëkk yi wër dëkk bi ndax dëkk yi wër dëkk bi tam daa leen woowaale tam leen daan woowaale daarul moxti muy waa daarul moxti waa mesere waa mesere waa madina Touré waa madina Touré rawaate nag dëkk sëriñ Touba yi wër dëkk bi moom rawaate na dëkk sëriñ Touba yi wër dëkk bi mel ni ndindi ak tindoodi muy mel ni ndindi ak tindoodi ak mbàkke ñëpp ñëpp ñëpp xëyeen dugg ak seen i oto ñëpp xëyeen ak seen i oto di jiitle dugg ci dëkk bi di jiitle dugg ci dëkk bi di liggéey ba wàcc di liggéey ba wàcc doog a dellu doog a dellu nee mel nañ ca dem bi ñu war a dem bàq ya dem bi bi ñu waree dem bàq ya daa waxtaan ak kilifa yi daa waxtaan ak kilifa yi ñoom ñu waroon dem setali bara bi mbusoobe ya ñu waroon dem setali bara bi mbusoobe ya defe nañ ko noonu doon setal defe nañ ko noonu ñoom it kon de liggéey bi kon de liggéey bi ni mu yaatoo ni mu yaatoo ni mu selle ak ni mu selle xam nañ ne tawfeexi sëriñ bi am bi am na ci ndax dafa woon na ne lu gàtt dana mat juróom benn fan mbaa juróom-ñaar dana mat juróom benn fan mbaa juróom-ñaar kon bu ndee yeewee ko ci alxamis ñeenteelu fan bi kon bu ndee yiwee ko ci ñeenteelu fan bi ñeenteelu fan bi sax laata tisbaar lépp noppi na ñeenteelu fan bi laata tisbaar lépp noppi na te bàyyiwuñ fenn dara te bàyyiwuñ fenn dara lépp set na lépp set na loolu de Pastef bu ànd ak yitte la loolu Pastef bu ànd ak yitte la dafa mel ni Pastef ak yitte nag loolu la sëriñ Cheikh Ibrahima jàngale loolu la Cheikh Ibrahima Fall jàngale mu mel ne ku bëgg a liggéeyal sëriñ Touba. mel ne ku bëgg a liggéeyal sëriñ Touba. te Pastef ak yitte ngay laltaayoo. Pastef ak yitte ngay laltaayoo. boo ko xasee laltaayoo soo ko xasee laltaayoo nag. dara dootu la tëj ci liggéey dara dootu la tëj ci liggéey bi. dara dootu la ci jafe. kon nag Mbàkke sa jàmbaar yi toog. kon nag Mbàkke sa jàmbaar yi nañ faj seen i aajo. Mbàkke nan faj seen i seen yitte jëpp kat. seen yitte jëpp nag. mooy sëriñ bi. mooy sëriñ bi. bëgg sëriñ bi. bëgg sëriñ bi. bëgg a liggéeyal sëriñ. bëgg ndax barki démb kat. ndax barki démb kat. ba nga demee Mbàkke Bawol. ba nga demee Mbàkke Bawol. di woon wax kilifa yii ne leen. di woon kilifa yii ne leen. mën nañoo laf loola tuuti. mën nañoo laf loola tuuti. ñëw ci lii ñëw ci lii lii lii nga leen waxoon lii nga leen waxoon ñu ñëw seetal dëkk bi ñu ñëw seetal dëkk bi buñ ci jógee màggali buñ ci jógee màggali ak jàmm ak jàmm buñ ci jógee gàmmu ji buñ ci jógee dem gàmmu ji ak jàmm ak jàmm ñëw bisub Seex ñëw ci bi lépp jàll ak jàmm lépp jàll ak jàmm ñu door a dellu Mbàkke ñu doog a delluwaat Mbàkke kon nag sëriñ bi Mbale na ak sëriñ bi Mbale mi moom jàll na ak jàmm. seet na guyu. seet na guyu. seet na wecc. seet na wecc. ndax bari yu ci daan xew. ndax bari yu ci daan xew. ay gaañu gaañu tànk ay tànk ak. ay tànk ak. yeneen yu ni deme ak yeneen yu ni demee. waaye wax dëgg la dégguma ci dara. waaye wax dëgg day mbàkke ren dégguñu ci dara. kenn indilu ku wéri di kenn indilu ko ku wéri di fenn. jënduñu ordonnance. jënduñu ordonnance. defuñu dara defuñu dara. lépp dafa sell. lépp sell na. sedd na sedd na. loolu nag. loolu nag. li sëriñ Mountakha di ñaan rek. lu sëriñ Mountakha di muy faral di ñaan. li muy faral di ñaan. mooy yàlla nañ ñu gën a gàttandoog tawfeexi sëriñ. mooy yàlla nañ ñu gën a gàttandoog tawfeexi sëriñ Touba. day wax ne kuñ kuñ gàttandoog tawfeexi sëriñ Touba. day wax ne kuñ gàttandoog ak tawfeexi sëriñ Touba. sa lépp day yomb. sa lépp day yomb. sa lépp day yéwén sa lépp day yéwén sa lépp day barkeel sa lépp day barkeel loolu rek lan gis ci mbaleem loolu rek lan gis ci mbaleem ren xam naa ne gàttanu nañ ak tawféex xam na ne gàttanu nañu ak tawféex waaye yàlla na sax waaye yàlla na sax nag yàlla na yàgg yàlla na yàgg ñi fi daje ñëpp ñi fi daje ñëpp nag lépp lu waay yéene ci xolam bëgg ko lépp lu waay yéene ci sa xol ca bëgg ko ñoo ngi sàkk ñu defal ko ko ñoo ngi sàkk mbàkke ñu ko ko lépp lu waay ñoo ngi sàkku ñu defal ko ba mu ko ba mu gisati loolu ba mu ko dégg mbàkke ñoo ngi sàkku ñu ne fa ko loolu ba ba mu ko gisati ba mu ko déggati kon lépp a ngi noonu lépp a ngi noonu mbàkke jërëjëf jërëjëf mbàkke seeral nañ lépp seeral nañ lépp waaye nag ñoo ngi ñaan itam nag waaye nag ñoo ngi ñaan itam ci suñ biir liggéey bii ci suñ biir liggéey bii sa jëmm ji sa jëmm ji ak jëmmi sëriñ Muntaxa ji ak jëmmi sëriñ Muntaxa ji ak seen bokk yëpp ak seen bokk yëpp ñu bokkal sëriñ bi yi ngeen bokkal sëriñ bi yàlla gën leen a sàmm yàlla gën leen a sàmm gën leen fee yàggal gën leen fee yàggal gën leen a wéral gën leen a wéral ba ngeen mën a taxaw liggéey ba ngeen mën a taxaw liggéey